xew démb mooy li nga wax rek euh, Cheikh euh, li li xew euh, lundi bi laay wax xewaat mardi bi ci ay gox ci réew mi du ne man du ma ne militant ñu génn ñëpp ay militant Pastef lañu en réalité ay sénégalais lañu ay ndaw ñu exprimer seen ras-le-bol ci ni réew mi di doxee ku juum nag moo xam Sonko wala waa nguur gi bu ñu juumee ba Sonko bu juumee ba soog ni ñu génn ñëpp dañoo yor carte Pastef juum na président Macky Sall bu juumee tamit ci ne ñi génn ñëpp waa Pastef ñu juum nañu ñi génn ay Sénégal nañu bon teint bon genre ñoo xam ne dañoo mer réew mi dafa metti réew mi dafa metti muy raal bool généralisé mu metti metti bu bari amuñu fu ñu ko mën a exprimer lii am ñu politiquee affaire ba ñu dugg ca nag ci Euh, yàq ci lu bari te euh, loolu moo tax ma lu lu mm-hmm. mais comme comme genre mortal combat la surtout sûrement dina am ko ci bàyyi ay plume que ça soit le régime ou Sonko. ñoom ñëpp ci bàyyi plume ah, mais surtout xam nga kan mooy plume yu bari yi xam nga koy bàyyi démocratie Sénégal waa Sénégal xoolal euh, ñun ay duñu ay duñu waaye Chérif lu xew lan la. ñaari nit la yu am problème euh, kii ne kii daf ma sàkku ci noo euh, xam ne euh, àndul ak sama ànd. consentement waaw ànd sama coo sama coobare. kële ne sàkku ma ko. daal di wax ne dem dugg naa fa nangam nangam parce que xam nga version kee riñ dégg ku jigéen ci moom la mu war a wax na ko ñee fële xam nga kon loolu loolu dul bees fii ci réew mi yàgg nañ ko dégg. léegi nag li lii lii lii lii xajamal yëf ya mooy kële taxaw na euh, ka ñu accusé taxaw na ne lii complot la boo xam ne Macky Sall moo ko def ba loolu jógee daal ne mortal baat bi nga wax mortal combat moo ko fi ba mu nee mortal combat gis la laa lendemain ñu yemoon di ko seeti pacifiquement laa jàpp kon ñooy ñamoon dajaloo euh, ay ay nitam yu demoon dem dem dem di ko encouragé bi bu fekkoon tamit li ma la wax ne ne nguuru Macky Sall tàmm nañu bàyyi mu sedd euh, d'accord euh, ñi taxawoon ci buntu Sonko ak fi réew mu toll euh, violé ñu peut-être interdiction de rassemblement mais contexte bi ñu ne li ma tout le temps ne président Macky Sall Ousmane Sonko daf ko war a tagg sa fu mu toll daf ko daf ko war a sant di ko tagg ndax lu ne lépp lu mu am rek moo ko may bu fekkoon ne président Macky Sall yónniwul waa police ak gendarmerie force de l'ordre yi na leen bi yoon mu teggi tànkara bàyyi mhm. kon coow du am. mais est-ce que taal bi li ko jafal est du ne dañu convoqué koo xamante ni si député la euh, yor immunité parlementaire est tamit loolu moom moo ko jur parce que dégg nañ ci veille bi conférence de presse euh, jàkkaarloo bi Sonko doon am ak taskatu xibaar yi li mu wax mooy du ma wuy ji tant que wu ñu suñu immunité par est-ce que du loolu moom moo jafal taal bi le fait que respecté wuñu procédure bi moom moo indi. fitna yi mais normalement moom Sonko bu taxawee ne du ma wuy ji rek kon wax ni jeex na. dama wuyu ji respecté leen normalement ñoom mooy li ma wax tout tout temps rek na la président Macky Sall ma euh, waruñu woon sax bala ñu àgg foofu ñoom dañoo waroon def li ñuy def ba pare donc convocation dooga am mm. mais xam nga defuñu ko léegi moom Sonko mu taxaw wax waxante ak Sénégalais man moom ba ma déggee convocation Sonko daa xam ne dina annoncé ne du wuyu ji euh, boole ci ay ay ay waxam donc. mais du ma wuy bu ànd ak sañ-sañ la. waaw bu ànd ak sañ-sañ la. mais am na fu mu ko teg waaw am na fu mu ko teg parce que député la évidemment moom mooy li ma la wax rek bu fekkonte ne ña ko ña ko convoqué précipité wu ñu woon. moo tax ma ne affaire politique bi kenn mënu ci génn Sonko ci boppam mi nga la nga amul ci politique bi euh, moo tax moyen défense ka def na politique la. dëggaloolu dëgg waaye euh, c'est c'est clair et net que mm-hmm. politique mënul génn ci lii mais c'est clair mais mais dafa dafa il a convoqué l'histoire parce que dafa gis ni ñaari challenger président ñoom ñëpp dañoo dañoo am problème ak yoon après gis nañ ni mu mujjee dem sax ba ñu mënatuñ sax nekk candidat sauf que bii nii xam nga ñaari ute na mhm. bii quand même c'est un truc de mœurs c'est complètement différent bokkul euh, Karim Wade deniers publics lañ ko wax euh, kee tam mën nañu wax si deniers publics ndax mm. caisse d'avance bi ay deniers publics bokk bokkul ak bii bii nag c'est un truc bien du privé bii c'est un truc diggante nit ak nit la euh, ka demoon Ousmane Sonko mu demoon ca euh, nuy tama ca salle de massage ba c'était pas le député c'est l'homme intitut personnel moo dem moo dem euh, ak benn ndaw la fa xew ñun xamuñu mais diggante ñaari nit la léegi nag moom bu ñëwee taxaw daani si jël système de défense c'est de bonne guerre mu taxaw ne politique la parce que il est évident il est clair et net que occasion yëpp koo xam ne dañu yàgg bëgg a rey Macky Sall tout rêve am yëpp mooy naka lay nërmalee Sonko mais Sonko ñoo may ko boppam ci comme ça sur un plateau d'am kon Sonko juum na nga mais mais mais euh, xam nga. ah j' espère kenn dem taal sama kër. non ban taal taal. <laughs> wala sa xalaat kenn dafa taal. wala mas ñu taal sama kër nga xalaat la nekk nekk rek. <laughs> c' est pas c' plus mais ce que je veux dire Astor euh, euh, Sonko dafa juum juum juum juum yàgg bii nag mooy lastu juum premier juum bi mooy àddina boo nekkee waxuma sax homme politique homme public muy yow di man di honorable di actu di Cheikh Tidiane koo xam ne boo génnee ñu ne yow la rek dafa am moomatoon sa bopp ñun ñëpp ay nit la ñu nag euh, on est on est on est mm. kenn ku ne si ñun am nga loo xam ne nii ñaanoo yàlla mu siiw nañu dëgg chaque à ses ses vices cachés <laughs> nous sommes mais boo xasee ba siiw lu bëri moo moomatoo ko na nag nga nekk homme politique nekk opposant nekk nag le le le l'opposant le plus irréductible de président Macky Sall euh, d'un chef d'état kooku nu mu la. maanaam moo ko teree nelaw mais moo ko teree nalaw léegi na yow ko Sonko la la Sonko deful erreur c'est une faute qu'il a faite salon de massage la war a dem loolooy dëgg Sénégal fii ku ne xam ne luy salon de massage ku ne xam na ko. la explication yu wax foofu yëpp c'est c'est clair na sa c'est tiré par les cheveux man man moo ko dama dama ne li ko doon simple man bu doon man maay maa yor communication Sonko wala ma bokk si station dama ko naan euh, li américains yi bëgg euh, muy dëgg dafa waroon na ñëw reconnaître d'abord sa première faute Sénégal yi maa ngi jéggulu waruma woon na dem foofu waaye nit laa doog na dugal la boo waxee tu plaide coupable mais toppee non mais toppee wuñ ko lu mu fa demee mais la la ab jëf ab jëf lañ ko fa toppee mais pas luñ ko topp lu mu fa demee c'est deux choses différentes jëf ji c'est autre chose parce que jëf yi on est dans le kooku su ñoo nekk xamuñu si dara mais def bi laa wax surtout ci ku mel ne Sonko foofu laay waxee fii Sénégal fii ñoom nii ñëpp Sonko ak ñu bokk ñoom langue politique bi fii ñoom ñëpp du ñu ay saint on est Sénégal xam nañu dafa xew ñoom ñëpp kenn nekku ci saint mais flagrant moo baaxul salon de massage Sénégal dafa am benn connotation benn charge négative boo xam ne mais ñun jigéen ñi duñu fa def surtout moom bu ñëw jaay ñu euh, diine euh, ibadula nangam nangam pati patata je suis clean je suis nangam pati patata yooyu mu jaay ñu ko donc yooyu ak yow charge négative bu am salon de massage waru fa dem premièrement il doit il doit Sénégal il faut ñu nangu dégg-dëgg il ne devait pas y aller dem na d'accord nee na thérapeutique ka nangal ku ne xam ne su nga mën mi xam ne du ma dara tekki ma dara <laughs> man actuellement ci li ma nekk nii ma dama ay kii ne ñëw sama kër fii livraison à domicile dafa am service à domicile ñëpp loolu te ay deux cent mille dafa cher ak yooyu fii dara moom su taxawaay dafa cher c'est c'est abusé donc ce que je veux mooy communication bi yëpp ni mu ko basé comme ni ma yàgg wax ci ay victimisation yooyu noonu yëpp yëpp pour moi c'est une grosse dafa waroon rek loolu nit nit da ngay nangu boo defee erreur da ngay nangu ne def naa erreur nii mais yaa bu argument doog a ñëw def naa lii juum naa fii mais yaa si yaa nangam léegi nag jëf ji ci boppam kooku on n'est pas dans secret des dieux kooku c'est autre chose boo demee bu ñu jaxasee yi le premier la première chose mooy dem def def comme ni ma ko ci Khalifa Sall. Mhm. Khalifa Sall mooy affaire kee caisse d'avance yi àgg naa ko wax. la faute de Khalifa Sall mooy yow xam sa euh, argument du ne ñëpp defoon na sama prédécesseur mais sa prédécesseur nekkuñu woon du xuloo ak euh, ak Macky Sall. yow ngay opposant di jotee Macky Sall nga laal ci loo xam ne waroo ko laal day dal sa kaw. mais est-ce que est-ce que euh, fi ñu toll nii nii nekkul moom Sonko quel que soit Alpha en avance quand même. ci euh, ñeneen ko séqal parce que soxna si ba moom it euh, presque fantôme la kenn xamu lu mel à li nga xamante wax na ko enquêteurs yi tey lan jàng ne xëy na maître Abou Dialy Kane mooy nekk avocat bu sukkandikoo ci les échos bu fekkente aussi le régime en face aussi déggagun loo xamante wax nañ ko ci alors que li fi xew au delà de l' privée gis nañ même les événements qui se sont déroulés le rek mériterait quand même une réaction de la part du régime waxee consigne bu leen ci wax dafa waroon ànd ak jëf du ma ci wax waaye jëf na jëf bi mooy day leen ne xale bu jigéen bi nga xam ne léegi presse la <laughs> mais Abdou Dialy Kane sama avocat la man c'est mon avocat c'est pas un petit avocat <laughs> c'est pas un petit avocat ku ñu fay 40 000 francs par mois am nga ñu ko Abdou Dialy Kane non amoo am ñu ko Abdou Dialy Kane kon am pour non disparition bii mu def nii Chérif Sénégal yi ñëw waxee disparition bii mu def nii disparition bi mais <laughs> il faut des moyens pour disparaître ah. ah kon da ngaa njort dafa am ñu ko dooleel. mais ce qui est clair et net mooy am na ñu ko dooleel. man nag xam nga fan laa gën a bëgg accentuer sama wax mooy ci la présomption d'innocence pour man. présomption des deux côtés des deux côtés. pour moi euh, dañ ko dañ ko dañ ko joole un peu euh, ci aussi bien euh, ci accusé bi ci accusatrice bi parce que boo xoolee temps yii yëpp li ngay dégg. ñi ngi ñi ngi song accusatrice bi ñi ngi mm. te ce n'est pas normal waruñu ko song mm. waruñu song kii euh, euh, pomaat kële comme tamit waruñu pomaat kee song kii li ñu war a def mooy moo tax moo tax ma leen man waxum ñëwuma ci jëf ji ça m'intéresse pas politique bi laay wax. loolu moo tax ma la foofu nag défi justice la quoi maanaam comme nee nañ présomption de laa ñëw justice dama commencé ma ni li yëpp lu waral coow lii yëpp man mii temps yi passé tooñ ma tooñ nañ ma fi ma dem bay porté plainte may ma ba si yàgg ma xalaat su ma demee porté plainte ak saa position yi may am du ñàkk ñu ne ñu instrumentalisé ñu ne leen fa fëgg leen ko naan ma nar a ridicule jël sama xaalis fay ba pare euh, am humiliation may dem damay bàyyi mu sedd gënalu ma mais ma man naa bàyyi mu sedd donc fii aujourd'hui justice ci lii xew nii ci Sonko parce que mhm. du lu ndaw li xew nii la justice a l'occasion une occasion unique wan ñu ne ñoom ina ina moom elle n'est pas instrumentalisée. mais est ni mu dooree ay sax lool dina yomb. Hmm. est-ce que est ak ni mu dooree loolu dina yomb. mooy dama gëm ne dafa comme suñu nag suñu corps de métier journaliste yi da nga dégg ñu naan kii elle est corrompue mais y a des gens ne sont pas corrompus Astou y a des gens qui savent ci justice bi. mais à condition que yow nga hérité si dossier bi. waaw non xoolal nga hérité si ak aussi parce que xam nga corruption c'est dans la tête gis nga gis nga liberté. ak euh, euh, liberté indépendance yow yaa nangu yow yaa indépendant d'abord leneen doogu ñëw xam xam nga fi may waxee donc ce que je veux dire évidemment ñu hérité ak ñàkk hérité pour moi pour moi occasion bii nii justice am waru ko rate waru rate loolu dafa dafa war penché dëgg rek politique bi mu fi dugg ba ca des aussi mooy j'attends moi de la part de Sonko euh, euh, dañu la ba immunité parlementaire am c'est c'est clair net que ba ñu to bu ñu bu ñu bu euh, dañ ko accéléré semaine prochaine affaire bi son retour li may li ma koy ñaan nag mooy moom da da pose un acte bu fort boo xam ne pour moi c'est une stratégie Euh, importante député la dafa nekk ci xeet xam na ne occasion lii nii xew euh, noono mi muy waa état bi dañ ci doxalu euh, sangu si ba seen xol sedd mu ne leen levaler sama immunité parlementaire c'est de bonne guerre léegi nag wax na ne nañ lever nañ lever immunité parlementaire ñee ils l'ont pris au mot ñu ngi enclenché procédure damaa bëgg aussi pour l'éclatement de la vérité parce que Chérif foofu laay ñëwee kii li nga laaj kan mooy gañ ak luy perte pour l'éclatement la vérité Sonko tàmbaluñu commission yooyu ad hoc yooyu ñu koy woo muy ñëw danaan carrément demuma bii nag bu demulee dina defaat erreur monumentale ndax bii bokkul ak yële 94 milliards yee ak bii ça n'a rien à voir. non mais bii dem parce que bii normalement. non bii non mais avec a mais suñu levee. non mais après euh, honorable va euh, va nous en plus ku ne xam on a parlé en coulisses euh, Macky moom moo jël recours levée immunité parlementaire moom moom benn benn député nekk député opposition yi moom nekkuñu nekkuñu en en avec lui malheureusement ñamu libéré seen seen immunité ñëpp léegi ñoom ñox ñox moom a donc euh, Sonko nañu jàppale dem ah, commission bi ñu ko wooyee na dem toog dëggal boppam défendre boppam